ci kaw Vision dafa doon bu mu gëm man la quoi wax ndax na ci di wax ay di ko wax affaire di wax nangul ko ko après mu ñam nguur fi bëgg fal après Macky Sall mu jéem a ko ne réalité yi ma jéem a wax di ko gëm ak yooyu di jéem a def lii xam nga rek yoo xam ne Macky Sall <laughs> gëmu ko quoi Macky yooyu gëmul ay ay réalité quoi ay dëggoogu yi gëmu ko mu daa nekk ci moom naan day jéem wax dëgg wax dëgg ba yàgg sa waay dàqoo sa waay dàqoo léegi mu xam ne moom maanaam ay ay mbiram jeex na ko si fini ci politique presque léegi nag la nga am it moo ko jural lii yëpp muy wax ak li muy ŋàññi nit ñi wala nangam nangam affaire yooyu noonu maanaam daa topp ci dëgg gum gëmul loolu mooy problème Moustapha Diakhaté dafa topp woon ci loo xam ci ni boo dëgg ci moom te li muy woote niwul ci moom loolu dafa boobu laa gis nii maanaam moo ko jural yëpp tey daa waroon ne muut rek nguuri fi jaar yëpp mu lekk mëq def ni ñëpp def dem toog daal euh. waaye daa woote dëgg woo xam ne maanaam réalité yi niwu fa voilà Naby Vision ne wax yii nii avant 2007 ñun ñëpp kenn xam ko woon ay wax ju deug la doon wax wax ju tegu lo xamne ne état def nako du deug mu wax ko ci anam bu ko war ba xam nga man mi sax na woon nako ay jamono quoi mais à la fin dafa muju melni dañ ko ko xam nga rek nguur ma parce que waaw Macky Sall doon dernier chance am nek na fa di karang-karang ba Macky Sall dàqoo mun ay Marème fay sama sama xarit le waaw manam lim sañ wax ni sax manam waa APR sax daawuñ ko wax wala ni koy ni koy jëm ak yenn wax du ko jëm ci mom la ko gisé waaw ma daal nit daal lu muy def daal da koy gëm ko yàlla waaw ci Sonko Moustapha Diakhaté daal laa gëmee loolu nit lu muy def na ko gëm waaw mooy am mooy tax mu am jeexital quoi waaw boo bonee da ngay wan leen carrément ni nga mel visage muy nga noppal ci loolu lu na gëm yàlla wóolu ko da gëm ko xam ko foo mën di mujj ak lu mën di xew tamit loolu nekk ci yow daal mu jaaxal daal boobu laa ko xamee quoi. mu dugg waaye bu nekkoon nag dafa dëggu dafa topp. réalité yi dafa gëm gëm gëm dafa dafa gëm daal dafa gëm li muy wax gëm li mu ko ñoom nguur ñoom ko bi yàlla da ko ci boole waaye yàlla lépp looy toll di ko am avance di ko deseel yàlla xamul loolu yàlla da nga jox lépp wala nga téye lépp wala moom mu jël lépp nga jox lépp maanaam mu jël yàlla lool la xam yàlla xamul détail waaw da nga koy jox lépp wala mu bàyyi la ak li nga yor. Naby Vision. yàlla noonu lay fonctionner fi mu doon réalité yi muy woote bu fekkoon ne nekk na ci moom dëgg la. billaay wala taala nguur gi da ciy bokk te boobaa da koy arrangé dëgg yi ñoon ñoo da koy mën a wax day exprimé wu ndax ay sonko yi loo gën a gëm yàlla gën ko ragal rek danga gis ñu gouvernement yi nii gouvernement bi da am jàmm waaw nit ñu loolu la ay jamaa yi yëpp ñun duñ fakkastalu doomu ndax am na benn ministre sama bokk ñoom boo xam ne génn nee na man nit kenn jarlu ma fen kenn jarlu ma lii sinon poste jarlu ma ko voilà te loolu amul gouvernement bu wees ci fii nii benn nit taxaw wax ko waaw benn benn benn ministre mosul dégg mu wax ko parce que jaralu ma fen jaralu ma lii jaralu ma war ci nguur jumaa laa gisee nit wax ko fi te dara nag ni mu waxee noonu la ko gëmee <laughs> voilà kon nag bu fekkoon ni li mu woote dëgg la yàlla dafay dem ba boole ko fii nii gis nga yàlla looy def te gëmoo ko rek fa nga ci war a jariñu fa lay ñëwee teggi ji même mel ka Assane Diouf ak voilà ñoom ñëpp nga xam si ni tey maanaam seen amul barke daal voilà fu ñu jubee teraanga wala jubee foo xam ne fa war a war a seen laaf yëpp ci yooyu lay lay yàqu quoi dañuy dem ba jub seen nga bàyyi lépp yàqu voilà Assane Diouf ak nii xeex ba dernière minute ay miettes yoo xam ne kenn xamul lu ko kii ba muy dugg ci espace yoo xam ne nit ñi mun ñu ko comprendre nit ñi dofun état sénégalais léegi dañoo dañoo gën a muus protection loolu mooy suñu problème moom laa leen wax sénégalais yi léegi nañu gën a yeewu politicien yi. Naby Vision. voilà tey boo nee saxaar bi di ko mel ni ñi dañ koy lekk saxaar bu ñu ko lekkee day dem fee xam ne lii moo leen jariñ kii moo baax ci ñoom dañ koy wootee toog di la xool dara bu ernee kenn xamul ku nekk koo wootee kenn xamul dara voilà kon état bi nit ñi léegi dañoo gën a yeewu politiciens yi te ñoom xamuñu ko nit ñi ñun mbaax ak jub rek ak teg lépp ci yoon la nit ñu soxla mais am na détails yoo xam ne newatuñ ci boo jël dix mille francs jox ma ko ma ma wooteel la pendant cinq ans ma toogaat fii di souffrir moo ko def. wax ci avocat bu ñàkk jom boobu nga xam ni ñu ngi koy woowee maître El Hadj Diouf ndaxte yàlla chaque jour rek mu di ko wan boppam. El dafa taxaw di def conférence de presse ak journaliste yi mu ni Moustapha Diakhaté liñ ko jàppe du yoon. li tax du yoon mooy dañ ni dafa saaga waa Pastef waxul dafa saaga seule personne de kenn nit déedéet mais daf ni dafa saaga waa Pastef te Sénégal gépp xam nañ loolu du dëgg ndax moom maître El Hadj Diouf du wax dëgg Moustapha Diakhaté li def mo raw saga ndax bu ne senegal kep ku wotel Ousmane Sonko da nga alko ça veut dire que yamul sax senegal moy mi ngi Europe asiatique amerique fep fo dem si aduna bi tap Sénégalais nek fa wotel passef El Diouf euh, comme adresse Moustapha jaxata ne nga daga alko El Diouf di ko layool si sensé won wan ko bopam fami tok di wax nan loolu du deug du yon ben xalé romb ko fa ko Naby Vision bàyyil dul googu tax mu asarnewu si kaw xale bi fàtte moom la mu doon wax ak journaliste yi walla di dem di traité booy bi n'importe qui ci bàyyil dul googu ko booy bi wax kon war na xam ni Moustapha Diakhaté li mu def waxuma la bu fekkonte ni El benn bi ko naqari benn rek moom kenn nit la ñu wax ko loolu mu naqari ko kenn ak wax ko ñaata million yi sénégalais ñaata millions yi sénégalais yoo xamante ni ñoo wooteel Sonko mu ni leen yéen ñëpp da ngeen a boole ko wax ju ñaaw gis nga Moustapha Diakhaté du nit ku ñuy bàyyi si société bi bu naan mag mag jar na bàyyi sim réew mag muy defar a tax mais mag mu réew xamadi may dégg Iran Ndaw ndeysaan démb ni man duma wax si kuy kuy kuy traité yonent bi n'importe ki wax na dëgg dafa alku moom mi moom buy wër ko alku rek na jàpp kooku dégg naa dof boobu bëggaan gay naan li mu wax dara nekku si waxal li mu wax nit ki boo naan li mu wax dara nekku si liñ ko jàppee du yoon da ngay taxaw am audace nga wax li mu wax ni man maa ko wax jël sa responsabilité waxaw ni man mako wax pour ñu xamni ni wax ji dara neew ci c'est parce que lu baax kenn ku ne man nga ko roy ci publiquement ñepp di la gis mais lutax boy def lu bon diko neub nabi Vision nañu bayyi yi ñu def yow foko naa ni da nga am touti jom sax yow bogan touti jom baña waxati si Sénégal yow sa journal bi billahi man buma do état bi yow sa télé bi sa rajo bi dañ koy tej c'est parce que yeen ay ay kat ngeen du ngeen wax deug li ngeen nek sénégalais ken xamul lan la chaque jour ngeen di ñu informer li dul deug yow rawatina yow yow waratoo woon am jom di génn ci télé wala rajo liñ la won ci élection yi danga war waroon toog rek xoolaat sa agenda lan la lan nga war a mën a liggéey pour peuple sénégalais yi xaw la bëgg am si yow cofeel tuuti mais doo ko def de da ngay continuer topp journal yi di wej-weji sa moroom yi am jom yëpp dem nañ toog toog dallu mais heure buñ xëyee sa journal yi tudd la. neexul ba neexul nag mais ñun passif nag ku dëgg yàlla nag ñun ñooy ñaaw yaay ñun ñooy ñaaw baay. problème bu waaye indi yenu ca àll ba jagat jagati ñëw ni waa Pastef que ma yéen a ngi ci biir te suñ yoon nekku ci yëguñu tiniñu waaw lii na la mën nekkee TFM yéen des médias fayeeku woo leen seen salaire presque deux mois ñun la moo ci suñu yoon ñun lan moo ci suñ yoon bañ bañ ñu ciy tudd dañu ci laaxaale ñun boo leen fayeekoo boo leen fayeeku la moo suñu yoon ñun daye sax ñun seetaanatuñu leen déglootuñu leen ñun ñu ngeen suñuy seeni bopp ñu ngeen suñuy telee bopp askan wi du ko suivre bi xam ne xew ci dëkk bi yéen nag ñun yaa xayti nag wax dëgg yàlla may la jàmm ñun pare nañ ci yéen bu yàgg-yàgg man nag li ma jaaxal ci mbir mi lenn kese la man damaa jàpp ni Babacar Fall message am bii benn message la bëgg a lancé bëgg ñu jàppale ko si ñun patriotes yi ndax ginnaaw xaw xam na ni nag réew mi réseaux sociaux yi ñun ñoo ko téye waar fakàlla karma sàlla li mu bëgg xam naa ñu jàllaleel ko mooy ñu waxal ko waa TFM mii mu fay lañ seen xaalis presque deux mois fayeekuñ man damaa gis ni loolu nga bëgg nag ku la ko jàllaleel moo tax nga boole sa challenge bii waaye bu dee loolu la nag ñun amuñu sa temps amuñu sa jot Babacar Fall jëndal nga manifester sa manifester bopp boo ragalee nga noppi ñun duñ la nekk fii di la waxalaka di la challengeal amal yar ñun ñu say moroom yéen ñu seen yii te leneen li ma ci jaaxal nag mooy commencement nguur gi di toog neewoon nañ télé yu bëri dinañ tëj ndax tele yu bëri fii nekk ci réew mi état moo leen doon financé ñiy dox di dëkk ku leen neex di sosal ku leen neex di tuumaal góor ñi yéen nag baaru nag bu dee yaa xayti nag da ngeen nekkoon ci loolu nag doo leen mën a fayeeku ah ñun daal en tout cas génne lañu ci seen wax yii xajuñu ci xajuñu ci nañ leen fay seen xaalis ngeen dem suñu yoon nekku ci bu la ñu ci dugal. salaam gars yi nuyu nañ leen Babacar Babacar Ba balaa élection présidentielle yi ñun fii lañu fekk bi ñuy jàpp leaderu Pastef di leen dugal ci kaso yi yow fan nga nekkoon kenn déggatu la woon kenn déggatu la woon. parce que ci dëkk bi leen dëkk te lépp loo xamante ni bii lu jëm ci wàll information la woon ñu ngi ko doon déglu kenn gisatu la kenn déggatu la ñu jàpp leader Pastef yëpp dugal ci kaso bi. Naby yi ñu jël lu mat ay mille et quelques dugal ci kaso bi kenn déggu la Moustapha Diakhaté lim def def ko benn yoon def ko ñaari yoon def ko ñetti yoon def ko ñeenti yoon chaque instant ci saaga sénégalais yi la nekkoon. nga nan diw ak diw wax nan li mais ci jamono campagne la nekkon ya nga don deg nit ñi tok ci télé yi bu melni Babacar Fall cierno Diop ñaari baat ñet nga deg ñu ne diw day fet di ko premier ministre degon gis ka waxon ngeen ci waxo len ci mustapha Diakhaté lim def ku dem saga yenen tibi saga serigne sénégalais yi saga wa Sénégal ngeen bëggu ñu bayiko non lolou du am loolu du mës am dëgg moo njëkk moom mooy mujj dëgg moo njëkk mooy mujj Babacar Ba mbir yi da ngeen koy teg ci yoon bu nekkul ci dëgg ngeen génn wax parce que xam ngeen ni fi mu nekk nii li fi nekk ak li fi nekkoon bokkatut yéen loolu leer na li wasalaam waaw mais salaamaaleykum salaamaaleykum patriote yi dofu Sonko bi la maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di bëggee ñëpp waa di wax ak waa TFM di jox babakar Fall pour mu jallalal mako wa TFM yëpp yen ak may deglu TFM yen ñëpp yen ak may deglu man mom Pastef la Pastef bu magam magam magam magam magam magam mag moy wax ak yéen. nabi Vision. babakar Fall kon yen seen yuuxu yek seen accusé Sonko beeg seen acharnement ci kaw Sonko bek seen xex yi ngeen doon xex Sonko yëpp ndaxata mak Sall dalena boton ci ndigam Maksal Sall maksal Sall moo leen bootoon Macky Sall moo leen boot ngeen ànd ak Macky presse di yak Sonko gudi di yak Sonko bëccëg te munu Sonko falu Ya babagar Fall yo man dama yakane da ngay da ngay da ngay mandi laxal xeysi si ko quoi yo ay laxal ngay xeysi si yo yow nante nga xam nga luy laxal yo da ngay laxal ba laxal ñëw xëy seeg moom ci rajo bi toog di tararari rek mais xam nga ne lii nga wax nii nii nii nii soo tàgg woon Youssou Ndour doo ko wax soo tàgg woon Bouba Ndour doo ko wax tey la vingt cinq ku leen tey la vingt six waaye tey nag kat la fal ndeyam nekk la trente et un te fayeeku leen lu si ndey yoonu waa Pastef dëkk bi jub jubal jubanti lañ fi woote Seydina Ousmane Sonko mu sell mi ñëw yor réew mi jubanti lépp kon yéen ay caaxaan ngeen nekkee woon ci dëkk bi Babacar Fall yéen télépresse bu Macky Sall ngeen woon ay caaxaan ngeen nekk woon ci réew mi di dundee ñaqu baadoole yi di naan suñuy dret tey nga taxaw di ñu ko jiiñ ñun waa Pastef naan ah fu mu toll nii kontaan nañ man kontaanu ma woon de mais katt naa si lëfal ndeyam kontaan bis ñu ko tey ba mu déggee sa kàddu yow. yàlla na ngeen kat seen lëfal ndey toog six mois feeku leen ñu dàq seen lëfal ndey te cottu ndeyu tele bi ngeen faatu fa yàllaaw. Naby parce que nag man li ngeen ñu yéene rek man loolu laa yéene seen ndeyan ah. man waxuma waa Pastef yëpp de man sama bopp man sama paar man dofu Sonko man li ngeen ñu yéene ñun waa Pastef man loolu laa yéene seen ndey yéen waa Walfadjri ak yéen waa seen TV ngeen tëj seen lëfal ndey seen télé yooyu ba pare ngeen kat seen lëfal ndey faatu fa yàllaaw ñun ñu noppalu quoi dëkk bi ñu mun ko liggéey ñu am ay yeneen journalistes yu jàng yu am xam-xam yu mun a teg dëkk bi ci ci ci ci ay raay quoi ànd ak gouvernement bi dem liggéeyi. parce que jeunesse bi dañoo sonn nit ñi dañoo sonn dëkk bi daa war a développé yéen ngeen nekk fi ñaari presse yu kat seen tuunu ndey di def lu leen neex quoi ok. yéen a yaakaar ne yéen sëñ bi yéen yéen yéen gis nga gouvernement yi fi doon ñëw ngeen leen di xupp di leen. non loolu du guvernement Ousmane Sonko bii de kii Ousmane Sonko mu sell mi la ànd ak yàlla gëm yàlla am fit ñeme lu muy def ñun ñu topp si ginnaawam bootu ci moom pourtant Walfadjri moo gënoon sàlloo jooy wal Walfadjri moo waroon njëkk génn di jooy ci télé fii lu ko fi Macky Sall tegul amul Moussa Bocar Thiam barki Dembo Ndiaye la ko tëj ñu naan déet déet mu nangu licence su télé bi bañ def si pétition di ñaan bañ delloo ko ko te pourtant ba léegi kenn déggul ma euh, euh, Walfadjri onko jaaraama Walfadjri gàcce ngaalaama Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass yàlla na la yàlla yërëm jégal la say bàkkaar yàlla na suuf oyof sa kaw jàmbaar dëgg fëkk tëdd dëgg ngi yaay mooy yow. nabi Vision. wal wal Walfadjri A ba Z directeur ba ci ñiy bale foofu laa la wax ñëpp mention spéciale ñu ngi kontaan ci wal Walfadjri di leen jaajëfal di leen ñaanal ci kaw ca kanam Babacar Fall gisagu leen data ndayam Sonko sël la ñuy topp ñu